ci la Sénégal di dajawaat ci la Sénégal di tàmbaliwaat lu bees kon tey journée historique la pour man pour le peuple Sénégal di la remercier bu baax sa taxawaay parce que bokkoon nañ fii assemblée national di sant askan wi nga xam ñoo ma tànn indi ma fii te askan woowu mooy waa Touba ak département Mbacké di sant xalifa saada murit di ko ñaanal mu yàgg ak mboolem kilifa diine yi madame la ministre loi bii nga xamante ni moom nga indi fii tam nekk loi boo xam dafa jóge ci gouvernement bi muy force loi pour si man Cheikh du Bara Dolly njiitul parti politique jiite coalition nekkal ci askan bi nekkoon candidat nekk doomu daara nekk chef lycée dinaa wote force loi bi ngir plus leçon man sëriñ bi nee na ma fépp fu waay man di nekk la ma la sant mooy jàmm loolu laa jox ndigal ndigal boobu noonu moo tax sëriñ basiru abdou xaari jox ma kaale gii moom laa yore tey kaale gii day firneel ni sëriñ bi jàmm la bëgg moo ma jox ni ma nang ko rangoo xam ni mission bi ngay dox mission bu noble la te am nga ndigal kon nak man dinaa ko wate maa ngi sakk sama mbokk yi ñu wate ko parce que lii président la moo ko indi mais du yëfi Macky Sall du yëfi Ousmane Sonko vive Cheikh du baadoole mais yëpp peuple bi la parce que jàpp naa ne am réew bu tolloo fenn fi ñun ñëpp war nañoo mën a maase fàtte jéggalante baalonte dem ci kanam parce que tant ñu ngi wax lu ñaaw tant que ñu ngi wax lu bon tant que ñu ngi déglu ay nit yoo xamante ni tant ay mi nga am ñu ciy dund di dem bitim réew day la xaalis di saaga askan wi nekk ci plateau yi fexe ba jàmm du am tant que ñu ngi déglu noonu du ñu wati luwaa bi te man naa pour ñu wati bi pour ñaar raisons Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu ndey la tey kaso bee mu nekk yéenewuma ko te luwaay bu jàllee dana génn dem fekk ak njabootam parce que ku watuwu luwaa bi da nga bañ Ousmane Sonko génn si kaso bi kooku si assis dinaa wat luwaa bi di wax sama benn bokk yaakaar Macky fukki at ñaar lu nekk defal na leen ko lu nekk jiñ na leen ko def na si réew mi lu nekk bu desee ay weer mu bëgg a dem indi leen luwaa bi ku ko watu da ngaa trahir a bokk a waxtaane dañ ko du nekk ba mbir di bëgg a jeex ngay trahir ña nga àndaloon di wàcc di dem feneen koo ko def jaam nga te dañ laa war a trahir comme ñu trahir jaam d'accorduma aussi ñi nga xam dañ fay nekkoon fukki at ak ñaar ànd ak Macky Sall tey ñu jóge ci Macky Sall ngir seen intérêt bopp ñii sàcc suufu dëkk bi ñii sàcc xaalisu réew mi tey ñu nekk ay candidat bëgg a opposition bi bëgg leen traité prison loolu d'accorduma ci Sénégal pour tous Sénégal pour tout Sénégal ci kanam jàpp naa ne réew mi c'est pas le premier fois loi amnistie am ci réew mi bii mooy fukkeelu loi amnistie boo xamante ne am na ci réew mi président Ablaye Wade tey bu ba nee nekk président de la république ba def mission def ñaari mandat dañ ko na si boobu defar réew mi day la réew mi parce que ñun président Ablaye Wade mooy suñu mentor mooy suñu royukaay li mu def ñun xam nañu ko mooy jom fulla fayda bëgg réew bëgg sa bopp amuñu benn pression bu ñuy dund man li ma ñor moo réew mi damaa gis sama parti dëkk Touba képp koo xamante ñëw nga Touba bëgg Touba bëgg département bi boo wuxta man doo ko gagné loolu moom mooy li wér monsieur le madame le boo xoolee loi am na si li ma ko waxee am na si loi am na si boo xamante ni bi ñu koy def Abdou Diouf di ko def booba robel yi nga xamante ñoo nekkoon Casamance amul sax jugement pour jàmm la woon te robel yooyu am na si ay jamono yoo xamante ni juróom benn fukki nit faat si benn suuf loolu lépp ñu mun ko pour tàpp xol yi dajale boole sam kon tay ji kep ko xam watu wor loi bi da nga trahir peuple bi da nga trahir Ousmane Sonko da nga trahir Macky Sall da nga trahir Sénégal ce vous remercie ngay dox merci cher collègue la parole est à notre collègue Guy Marie Sagna suivi de Modou Baragay